siyaar naa leen sama gars yi mbaa ci jamm bu baax a baax gars yi dañuy rapidement ci ben vidéo bo xamanteni euh mën na ni dafa circuler waat ndax vidéo bobu 2019 la muy pap jibril Fall bi mu nekk ci ben salle de classe di conseiller xalé yi euh vidéo bobu nak ma gis euh, père bu xaar euh def ci page am benn post di ko naqarlu di wax Pape Djibril Fall euh, maanaam wan ko ni ko li nga wax c'est faux ndax ñun comédiens ñi ngi sant yàlla ñi ngi sol yére ñi ngi dem fu ne après nag bi père bu xaar defee vidéo euh, maanaam poste boobu si la yeneen comédiens tamit ku nekk di wax di wax di wax di wax mais déjà vidéo bi 2019 la woon euh, sama xalaat lan moo tax père bu xaar bàyyi ba 2022 mu ci doog a tontu. te pourtant yow ak pap jibril Fall yéen bokone ben benn télé bu leen ndax mi won TFM tay yow TFM legui dégguñu la yow moment bi mu koy wax yow nga def si benn réaction nga baye ba tay après nga ci doo wax ben wala boba je sais pas man yéen relation ngeen amone wala boba non yow hmm, euh, genre da nga amul won jot tontu ko wala da nga dafa am lu tax yow nga tontu sa way wala dara mais man euh, défendre ma Pape Djibril Fall mais damay ñëw ci propos yi nga xam ne wax na ko ak ñi nga xam ne dañuy dégg ndax li mu wax c'est vrai voilà c'est vrai kenn waxul ni théâtrekat yi dañoo nekk ñoo xam ne dañuy dañoo dañoo nu mu tuddati dañoo dañoo euh, bon wala dara bu nee comédien comédien bëri na mi ngi mel ne ni nit ñun ñëpp ay nit lañ mais nit ñëpp bokku ñoo yam yow l'essentiel ni yow yow mi muy wax yow bokkoo si ndax xëy na peut-être yow doo wane exemple boo xam ne day lor xale yi il faut nga par rapport à am euh, série aux États-Unis Barack Obama bu mer c'est vrai c'est vrai parce que moment bu mu koy wax boobu Barack Obama ne euh, euh, président président États-Unis ah li xew te moment boobu noonu am na Sénégal Sénégal da ngay toog di seet ay infidèle ak yeneen ak yeneen yoo xam ne day am ay fóonante wala leneen ak leneen la est-ce que loolu exemple bu baax la hmm? te bu njëkk man ci li ma fekkee ay temps ay jamonoy Mamadou Penn xam nga ay Démbi Fall dem si dem si yàlla si dañ doon théâtre ngay ree di si tirer leçon te booba sax ñun bu ñu daan seetaan il faut que bu ñu daan pour ñu seetaan day fekk ñu jàng ba pare wala soit Euh, bu ñu demee benn kër mu lenn dañuy jàng dañuy génne parce que am na yenn yoo xam ne du ñu bëgg ñu seetaan ko même feuilleton yi sax daaw ñu numu ñun ñu seetaan ko mais léeg léegi jamono di dox di dox di dox di dox ba nga xamante ni xale yi dañuy toog ak seen yi di seetaan ay ay ay ay yoo xam ne lu nekk mu si biir donc essayer jéem a comprendre ni fi Pape Djibril Fall di waxee parce que wax na dëgg am na comédien yoo xamante ni ñoom euh, faux faux vie la ñuy wane ndax li ñuy wan lay wan ci série yi nekkul am na si ñoo xam ni Euh, moom nee na am na benn xaritam boo xam ne sax des fois moo koy woo pour mu koy abal lu muy sol loolu tamit c'est vrai parce que loolu xam na ni yow yaa ngi wane benn fii boo xam ne nekkul si yow bari na ñuy jouer théâtre ñoo xam ne yoruñu dara donte yow per bu xar wala keneen ak keneen yéen a ngi ci tedd mais yàlla bari na si ñoo xamante ne tey jii nii ñu ngi si théâtre bi am nañ tour mais amuñu li nga xamante ne tey jii nii euh, ku nekk yow yaa ngi koy jéem a yaa ngi koy jéem a jéem a jéem a jéem a jéem jéem a rêve quoi muy tekki ci théâtre am na ñoo xam ne dund nañ ci théâtre def ci lu ne te amuñu loolu mais suy wax day wax ñi nga xamante ni ay euh, maanaam euh, dañuy def def série di def série ba pare di wane ay mauvais exemple ba pare booy di ko rêve instant bi série yi kenn waneetul maanaam réalité yi nga xam ne moo nekk Sénégal gàllo yu lëg si la ñuy wane wala ñu wane genre yoo xamante ni tey jii nii c'est di c'est di c'est di c'est di c'est n'importe tey xale bu ko seetaan yow mën nga see mën nga see jëlee euh, loo xamante ni tey loolu daf lay réeveloo te loolu moo am maanaam ci Sénégal kon nag Pape Djibril Fall propos mi mu teg il faut essayer comprendre fan lay waxe fan lay waxe xam nga mais pas que muy ñëw di expliquer di wax naan ay euh, Pape Djibril Fall xas na comédiens yi def na lii ak lii des wax dafay laaj si dégg-dégg mais juste que rek pour xamal gars yi ni euh, defe naa ni euh, Pape Djibril Fall du xas comédiens yi pour pour xas leen nii ndax ay ay ay ay ay ay papaam yoo xam ne ñi ngi ci ay yaayam yoo xam ne ñi ngi ci théâtre defar na leen lu nekk xam nga kon suy wax loolu rek peut-être da koy wax pour maanaam wax ndaw ñi ñu dem jàngi ak heure yi nga xam ne dañu toog di seetaan ndax jamono ji xale yi u lieu que ñu war a toog concentré wu noonu ñu ngi sëgg si série yi di xool léegi ku seetaan ti da ngay yow pour doon actrice wala kii di rêver pour doon acteur alors que loolu euh, c'est xale boo toolee si toolee si jàng da ngaa war a dem jàngi soo toll si dem liggéey da nga war a dem liggéey mais bu fekkee danga ngaa bëgg a penser sa sa sa vie ci ay rêve yoo xamante ni lii dalay jaral nga def yenn yi wala dalay jaral nga def def def na ko su dul noonu euh, seen normal kon waxam ji nii ñu dégg ko bu baax xam fi mu waxee ndax Sénégal léegi noonu lay doxee ku nekk yaa ngi rêve pour nekk acteur wala actrice te defe naa ni loolu rek nekkul vie bi te yéen théâtre kat yi sax di ngeen koy wax seen biir des fois da gis xam day kaas naa léegi ni ñuy théâtre vraiment mooy loolu kon sa way foofu foofu la lay foofu lay foofu lay waxe euh, te vidéo bi yag na lan moo tax ngeen bàyyi bu heure bi ni yéen ngeen dogo tontu sa way ça dit que lan la qu'est-ce qui se passe waaye amuma nag lan lu may défendre pap Djibril Fall mais wax wax ju deggu ak wax jo xamanteni tay ji manam boko maanaam xamni ki limi wax amna na euh, ken mu euh, peut-être soko dé soko dé soko dé bañ dang koy bañ d'une côté arrangé mais li mu wax lépp ba fin ba commencement lépp la donc gars yi yéen commentaire te boo leen ba pare bu euh, ngeen abonné yéen nga xam yéen a dugg ci chaîne bi te abonné notification ba vidéo bu rek ko